jaajëfal alxaaji sëñ mbàkki si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suturaak tiraanga ak poche yi def dara 24 février 2019 dem na waaw dem na bàyyi nu fi buy dil siwaat yàlla ñu fi fekk waaw 24 fekk nu fi fekkaat nu fi ba muy at yu yàgg yàgg yàgg tabarkàlla février mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot démb maa ngi doon tàmbali tomb yoo xam ne mooy yóbbalum ñi nga xam ne ñoom lañu ñu tànn wala ki nga xam ne moom lañu tànn yàlla na nu dégg waaye loolu na ñuy séentu ci moom ñun ñi doon tànn waaw ñun ñi doon tànn kenn ku ci nekk ka nga tànnoon ci juróomi candidat yi bu toogoon lool nga séentu ci moom waaw loolu nga séentu ci moom kon ki toog it loolu lañ séentu ci moom ma tolloon démb ci atte ñaar ñu jote ma tolloon démb ci bi njëkkati jataay bi atte ñaar ñu jote ndax ñaar ñu jote munta ñàkk ci pénc waaye bu ñaar jotee bul xool kenn ci ñoom fu mu bokk ak fu mu far na dëgg ñëw rek na dëgg ñëw rek bu dëgg ñëwee àtte leen ñoom ñaar la Omar la Abubakar Siddiq daan wax waaw ki bëri doole bu tooñee ba ñëw fii moom mooy néew doole ba baa fayul ki néew doole Omar Abubakar moo ko daan wax waaw mu ne ki am doole bu tooñee bu ñëwee fii mooy néew doole moom mi to moom mi tooñ te am doole ba baa ñuy nangul ki baa ñuy jël àq ki nga tooñ te néew doole loolu kon lu ama am solo la mooy bu ñaar xëccoo penc mi ne xëccoo yi gën a mën a xëccoo mooy suuf yi suuf yi terrain yi nangam terrain yi nangam waaw nga ne nga dégg ko ne sama téere bi dañ koo jaay ñaar waaw walla sama téere bi diw ci teg loxoom wala suñu terrain yi mbooloo sàng moo ci teg seen loxo yëf jàmbur boo ci ñëwee di wax ak moom am na nooy waxee ak moom mën na laa nangul li nga bëgg a def mooy bu ca ay àqam jógee waaye bu fekkee ne dañ koy foqar ci loxoom mu ñàkk su boobaa du ko nangu te itam lu ñépp bokk bu nu ko waxtaanee rek tabarkàlla mu am solo bokk na ci ñu koy xaare mooy iqaamatul xuduud waaw euh, li taxsinil maxaarim aw li tusaanil maxaarim mooy fexe ba ay pen tege yu ñépp gis ba yi nuy tere kenn du ko def ndax dangaa te dangaa ragal pen yi waaw pen mooy lan li ñu ne ku ko def lii lañ lay def penc mi def na am lu ñu tuddee code pénal waaye ndax code pénal boobu code pénal boobu dana jàpp ci loxol kuy tooñ loolu lañ koy doyee koyut ku man di tooñ nag moom daa war a nekk koo xam ne ki day tëdd rek tëdd njaaxaanaay ku tooñ mu ne la eh, tooñ nga waaw sunu penc nag <laughs> xon naa ko commissaire li ëpp ci sunum penc aada dafa yàqal ñiy liggéey ci wàllu googu aada yi dafa yàqal ñiy liggéey ci wàllu googu waaw ndax luñ la tooñ tooñ tooñ boo jëlee ki la tooñ yóbbu ko ca ñay àtteeg tooñ rekk ay mbokkam jóg say bokk jóg waaw fim nekk su ma amoon sama cinquante million <laughs> jël ca dara maanaam ma jël ca dix million jox nogay ne ko jënd ci ay xar nu bokk yar maag yow noo koy jël la ma ko jox deme ci am xew defe kom xew waaw ma ñëw laaj ko mu làkk ma ay daar daar mu làkk ma ay daar daar ci ni def xaalis bi man maa ñàkk rek ndax su ma ko yóbboo ci yoon ñu ne yóbbu na nogay ci yoon waaye duñ xool lu ma nogay def ba mu yóbbu ko ci yoon sama fukki million la nogay sànq bu ma ko yóbboo ci yoon <laughs> ñu ne yóbbu na nogay ci yoon am ñu ne monte moom day nangam léegi duñ wax lu nogay def loolu kenn dootu ko laaj mu tax sunu penc nangu nañ ko tooñ daanaka légaliser nañ ko li ñu nanguwul mooy ku fayu li ñu nanguwut mooy ku fayu duñ la laaj nu mu demee duñ la laaj lu ngeen seen yónni ko ci waaw ba tax léeg-léeg nga dégg jëkkër ak jabar ju jote ñu ne jabar ah bul dem ci yoon ndax yaa yóbbu woon ba sa bàyyi doom yi ci yoon waaye daal <laughs> noonu lañ koy defe de ku góor kiit ñu ne ko bul dem ci yoon waaw ñun foofu ci suñu aada def ci liggéey liggéey bu réy réy bu doy waar boo xam ne bii nit ñu ñu teg ko ay daan c'est très difficile waaw ñu koy négocier rek di dem muy gën di jafe rek ndeysaan yàlla nu yàlla yërëm waaye daal ki nu séentu ci yii mu bàyyi ci xel bu baax a baax leen lu nekk na mu koy aborder waaw ab soññaate la ci nun ab soññaate la ci moom am na beneen tomb bu am solo ci penc bi ginnaaw bi mu waxee iqaamatul adli bayna naasi nu mu koy defe te mooy ñaar yooyu mooy atte ñaar ñu bijoo teg ay pen ci ñi nga xam ne ñooy def lu ñuy tere waaw ñooy def lu ñuy tere hmm? bokk na ci yooyu nag li ñu tuddee idaaratul maal idaaratul maal mooy am réew dafay am luñ tuddee almaalu mooy alal dafa am luñ tuddee almaalu te almaalu mooy alal alal ji réew mi am mu fexe ba jiiñante beeg dossier yeeg du man ak du yow yépp ñu fexe bam dañ ndax soo nekkee cim réew ñuy dégg ne toxal nga nàngam su nit ñi xamee suñ xamut tax nga su nit ñi xamee suñ xamut tax nga xawma nu ñuy def ba ba code yooyu ba nga xam ne looy man di am da ca yem loolu nag ma nga tàmbalee ci ab yar tàmbalee ci formation tàmbalee ci orientation ba nit doyloo li muy am ndax ci alali réew mi te mënoo ko lekk jigul réew mi waaw dafa am suñ benn dëkkandoo bu ñu wax kaña dafa am benn dëkkandoo bu ñu wax kaña su guddee day wër kër gi rekk looyof mu yóbbu këram kaña lay liggéey day wër kër gi rekk looyof rek mu yóbbu këram waaw ba demee ci kaw gi bu ñu daan bay boo naafee sab naaf janax daf ciy dugg di watt ci gerte gi ñu def ci mpaxam waaw di watt ci gerte gi def ci mpaxam ñu daan ko tuddee rënk léeg-léeg ba ci masaana àgg bu dee rënk bu yàggut am nga gerte ndax la ca la ca gan janax jay def daanaka fees na sa pot alal ji mi di am bu ci nit jëlee loo xam ne mat na milliard jàpp ñaar ëpp ko loolu munu ko lekk ay bokk munuñu ko lekk te yàqal na réew mi waaw million waaw milliard <laughs> maam Abdoulaye Ndaw ma la ca naan boo ko joxoon milliard fi ne la jël ko huit la jël ko huit <laughs> waaw xam nga man mi ñaan cinquante deux milliards yi bis bu ñëwee <laughs> ba ma wootee conférence de presse ne leen ñëw na keroog la la coow lii tàmbali ceeb te maa la ko wax de keroog la coow lii tàmbali waaye daal alali réew na réew ma moom alali réew na ko waa réew ma moom bu ko kenn jaar sàkk bu kenn tam di këpp keesu nu bàyyi ko waaw léeg-léeg nga romb ndeysaan benn société walla benn entreprise bu mas a dox nga romb fa rek ay ata ngi nii duxut xomb ya xumaag caabi ya yàqu lu xew la fi doon ruuse pénc mi bokk ko la jenn waay lekk anamu xam waaw loolu alali réew mi na ko ñépp bokk ku ne di jot nag la cay saaq ku ne di ca jot la cay saaq waaw loolu am na solo lool tabarakallahu te dana jur ñu wóolonte te suñ wóolonte rek jàmm yu baree bare am suñu diggante ba ca tege mooy wutal wutal nit ñi liggéey taayinul mawqifin waaw wutal waa penc mi liggéey waaw loolu sunu mbokk sas Ahmed Dame Ndiaye di ci jàngal lu am solo moo mu ngi bokk ci ligue des imams waaw yàlla na ko yàlla sàmm te sàmm liggéey bi Oustaz Ahmed Dame day wax ne danaa leen wutal liggéey ba noppi génn ca yombut waaw ndax wutal nit ñi liggéey moo yombut ñu ne ko lu yomb mu ne sàmmal kenn ku ne la muy liggéey looloo yomb allahu akbar nee li wutal nit ñi liggéey yombut ñu ne ko lu yomb mu ne sàmmal nit ñi li ñuy liggéey lu la yomb boo fekkee ma yoro fu la ci gël lam yor nga fexe ba lam yor kenn du ko jaar sàkk waaw nga dem ca Ibrahima euh, Sow Ismaïla Sow laa bëgg a wax euh, muy sàmm nga sàmmal ko la muy sàmm nga xam ne fu ko fu fu neex aw nagam fanaan fu neex am xaram fanaan bu fanaanee tëdd nelaw léeg-léeg mbokk yi am luy xew ci pénc mi nun ñëpp nu sëgg mooy lan tabaski day jot ñu ne il faut Mauritanie ñëw yi ñëw sinon duñ tabaski waaw Mauritanie moom ndax dana wax na Sénégal ñëw pour ñu tabaski ndax yi dana wax na Sénégal ñëw pour ñu tabaski lan mooy tabaski mooy xar mi ñuy rendi yoor yooru bisub tabaski ah mooy mooy tabaski waa léegi nun mënuñoo yar xar yu ñu tabaskee mënuñoo yar nag yu nu gàmmoo ak ganaar yuñ tam xarite lu tax mënuñu ko yor mooy ki yor juróomi xaram jenn waaye fay jaar jël juróomi xar yépp rendi ko tey dox ci mbedd mi kenn du ko wax dara su ko defee ñépp bàyyi yar xar bu ñépp bàyyee yar xar bu tabaski jotee ñu ne Mauritanie wallu si leen ñu Mali wallu si leen ñu ñu wallu sunu ndóoru tabaski waaw aminta mbeng loolu jar naa xoolaat loolu jar naa xoolaat mooy wutal nit ñi liggéey tekkiwul ku ne nga wutal ko bureau mu ciy xëyee ko gont mukk li muy tekki mooy kenn ku ne la muy xëy di def ñu sàmmal ko ko ba kenn du ko jaar sàkk jamono ñooy waaw kenn ku ne xëy def waaw ñu sàmmal ko ko kere bi yàlla dugalee sunu maam aadama aljanna dafa wax ak moom ay baat yu jara bàyyi xel ba mu ne ko duggal aljanna anta wa zawjuka waaw ne ko lu leen leex lekk leen waaye daf ko waxoon ñeenti yëf inna laka allaa tajua fiha waaw doo fi doo fi xiif inna laka allaa tajua fiha wala taara doo fi rafle doo fi mar doo fi tëdd biti ñeent yooyu koo gis muy dox benn ma ngay dox ca benn ca ñeent yooyu ci la dox jëm wala ci la jóge li ci ëpp li ci ëpp moo tax suñ ko bàyyee nit ki di ko def te sàmmal ko ko rek léegi tey mu am ci pénc mi euh, li ñuy tuddee liggéey waaw tabaarakallahu yooyu am solo la euh, ci pénc mi ma jeexal ci ku ñu tànn ñun ñi ko tànn luy sunu warugar digganteem ak moom lan mooy ay droit am ci nun waaw lan mooy ay droit am ci nun waaw danay wax ne six millions bu ñu bindoo cadre yi wate quatre millions yi wate candidat benn candidat bi am un million mu des trois quatre yi séddoo ko dama ne trois millions ñu ëpp un million waaw moo tax ñu bëgg taux bi wate bari ndax kiñ fal ñu ne niñ ko fale valable na waaw kon dafa am ñaar yoo xam ne ñoo ko ameel ki ñu tànn attaa an nusra waaw attaa nusra attaa mooy ñuy topp yi muy yi digle ñuy topp yi muy tracé ñuy topp yi muy rëdd li feek tarasiwul mbaamu rëdd maasiya maasiya mooy loo xam ne yàlla nee na déedéet ki ñu tànn su ne waawaaw ñu ne ko déedéet nag waaw ñu ne ko déedéet waaye li fekk nekkul ci maasiya pénc mi ànd ak moom ca yooya daf koy noppal noppal waa pinc mi loolu lañ tuddee ataa alayhi salaatu daana ci jàngale lu bare bare bare bari naan saxaaba yi walaw ta'ammara aleykum abdun abashi waaw ku leen mën di jiite topp topp leen ko waaw loolu lu amam solo la te mooy topp bu ci tege muy annusra annusra mooy loolu sul xarni ni waxoon fa ay noonu dimbali leen ma kon jàppale ko li feeg moom tam changement amul ci moom waaw changement amul ci moom bu changement amee nag tabarkalla dëpp jot Abubakar Sadiq ca discours am bu gàtt ba wulitu aleykum walastu bi xayrikum waaw atiuni ma ataatu llaha fa in asaytuhu fala taati li aleykum xumu ila salaati yarhamukumullah loolu la waxoon keroog topp leen ma li fekk maa ngi topp yàlla nu ànd di ko topp su ngeen si séenee toppatuma ko dëpp leen waaw dëpp leen waaw daañu leen acci nu julli mbokk yi kon yooyu rek lañ indi woon ci wàllu woowu bu nu dundee ba ëllëg nag mu ngi jege si xam ngeen ne euh, weeru mars di weer wi nga xam ne moom la àdduna si walla pénc mi jagleel jigéen ñu joyal suñu waxtaan foofa jëme ko fa insha allahu subhanahu wa taala yàlla yàlla bol nu sàmm lu jub ci wax ji sunu borom la lu ci du moom man mii la sunu mbokk yi xëy ci xabaar yaa ngi nii taxaw yor seeni këyit bëgg leen a firiñ fànc la xibaar ci waa firiñ fànc la ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii